c'est bon gars alors ñu ngi ak euh, Djeba fi ci timis ginnaw nak bu mu génnee son album album de treize titres sénégalais yépp bëgg ko sénégalais yépp diko enjoy alors mom lañu togg ak ni, mom lañu taxaw ci pour dire pour m'expliquer expliquer ñu un petit peu naka la def ba génné nga xamné moy album bi c'était un peu dur metti woon séance d'écoute bi et tout sénégalais yi bëgg ko itam Djeba, ñi ngi lay ziar bu baax. waaw ah mais delloo ziar delloo ziar bu baax baax donc. Euh, comme qu'on est album rec, album c'est pas quelque chose de facile. Mhm. Donc surtout quand tu es un jeune encore en même temps, tu vois, tu bosses pour pour yo quoi, tu vois. Donc Diba il fait de l'autoproduction moi moi produire bopam propre structure structure créer. Donc c'est pas du tout évident, c'est mhm. pas tout évident mais comme luñ tu vois. Donc musique mhm. tout le temps musique donc c'est un travail que j'ai débuté depuis 2017 xam nga ba 2022 donc plaisir la taille tay ma génne sama propre album jox ko Sénégalais tamit gis na né retour yi yi ma ci jotta amagum pour l'instant donc c'est un une fierté quoi fierté bu mag a mag la pour ma. nga génn benn album bu 13 titres Sénégalais yi bëgg ko nam aladi bi neex mais sa deuk Thiès. alors son bobu noonu inspiration bi naka la démé bah Thiès c'est ma région avant dara donc euh, fier encore comme nous fier d'être Thiès. Mhm. donc euh, parfois artiste tout le temps c'est bon parfois des critiques mhm. donc comme des chansons d'amour que Thiès parce qu'on le voit pas et tout ça. Mhm. donc après je voulu juste montrer que moi je suis un bah, <laughs> donc donc c'est un plaisir Tay dem représenter Thiès tu vois un artiste boo xamante ne Thiès la jógee ñëw fii Dakar tu vois mhm. donc wane ni man kat fii laa jógee fii mooy sama base fii mooy sama fierté fii mooy sama lépp moo tax j'ai fait un dédicace ci album bi la chanson Thiès. d'accord Djeba nee nañ jigéen ñi kese lay wër mu génn benn son itam tuddee ko Aladji, waaw waaw waaye Alaaji nee naa la comme album album da ngay essayer déglu critique yëpp yëpp yëpp après essayer def ko sa album quoi tu vois. Mhm. critique yu positif yi yu négatif yi yëpp yëpp yëpp da ngay jël yëpp après xool nan laa ko mën xam nga ku ne quoi donc parce que gars il disait tout le temps Djiba est-ce que newul jigéen rek lay woyal mhm. et là je me suis dit donc foog me rendre hommage à la ji mhm. góor ñi xam ne bi buñ ko déggal kat góor ñi dañ ci sentir sen bopp quoi mhm. ouais d'accord pourquoi Sadio Mané ouais Sadio Mané comme euh, mom c'est une fierté quoi Sadio Mané nit la bo xamante tay képp kuy sénégalais rek képp ko xamante tay tey commencé nga rek tu vois ba dara dul dara rek kooku euh, référence la ci yow quoi parce que man tout le temps c'est un exemple pour man parce que tay un nit bu jógee nit bu jógee Thiès laa ñëw xam nga ba dara quoi musique ak zéro ba tey sa propre album di defar say propre business donc fierté la Sadio Mané aussi tamit seet ko ba Galem Bambali et là je vis ouais, il faut me jógee ba juste pour montrer que tout est possible quoi dans la vie. mais xalaat bi fan lay <laughs> voilà inspiration bi man bind bi man moy sama problème. Oui, mais je reçois beaucoup de questions Djiba bindal Djiba mais man bindal sama donc yàlla moy may nit quoi comme peut-être que ci côté écriture. bind donc quoi d'accord mais tu album bi aussi tu sais comme album da ngay euh, artiste da ngay critique positive et négative tu vois je suis un peu fier d'être un peu comprendre pas papa Peul yaay Peul et de l'art, encore Peul donc je me suis dit man pël là donc sama album su démé bay def album faaw rendre hommage l'art tu vois faaw me rendre hommage aussi tamit debbu poulo moy jigéenu pël wo xamantene tay moma moo ma jur moo jur ñeneen ak ñeneen donc tam motax tax ma rendre hommage. d'accord lan nga fas def pour rendre euh, album bi surtout sur le plan international. Mm-hmm. oui on est entré parce que on a débuté sax on a débuté parce que bo xolé album featuring tu vois pratiquement donc featuring ci sous région bi la muy Mali muy Guinée muy Mauritanie donc pour man la base c'est comme ça tu vois.

aussi tamit bama defé son bi mu nek ben son bu xawa rew et tout ça xam nga ma xaalimtaara bi style am réewal day bobu non neex ma xam ma ne bi fa am invité ci xalim xaalimtaar après il est venu ma tay mu def ci ben affaire bu nice quoi. d'accord revenons d'abord sur le titre pourquoi Aladji Aladji c'est Aladjiba à la hmm. jiba comme ngeen da koy defee à la telle personne à la telle ça c'est à la jiba parce que tey boo dégg style musique bi boo le voix yi boo déggee lépp tu vois donc li doo ko dégg feneen quoi ci jiba rek nga koy déggee moo tax style bi ça c'est à la jiba d'accord mais gis nañu tam ngay def ben message di lancer jeune bi ne warul xaat di ben yoon champion ouais ouais champion ouais non parce que mon parcours que là, on d'écrire tu vois pour da nga mu parce qu'il y avait absolument rien du tout pour studio c'était tout un problème tay ba yalla sant yalla tay yaangi ngi génne say propre album ak say propre moyen donc lo juste pour montrer rek bépp jeune nak bu nek ci musique bu nek ci luma mu mënti rek gëmal ni ça c'est possible tout est possible quand tu es un jeune nga liggéey tout est possible donc mota champion ma jégleel ko vraiment champion mais mais fin d'année bi lan nga ñi wajal moy ñi nga xamanteni dañ lay bayyi xel di la topp am ay concert wala ay affaires yo xamanteni wala ay tournée internationale yo xamanteni ni war nga yang koy waaj si pour l'instant on a on a on a deux dates ah, pour l'instant on a le 24 décembre à Kaolack on a le 31 décembre, stade Ngalandou Diouf. Mais actuellement, on est en train de travailler avec l'équipe pour une tournée, c'est tournée régionale. une mission au Sénégal. Nous au aussi, janvier, nous Gambie, nous Mali tournée bo xamantene aussi tamit ci sous région bi la buñu paré aussi tamit on est en train de caler avec des des des producteurs des des des book des gens qui book donc euh, pour pour pour pour pour des sorties des sorties internationales donc on est en train de travailler là-dessus donc bu antor rek yeen ñëpp di ngeen ko yëg merci mais mais bah merci beaucoup. Prof Sétier. <laughs> Mais mais Val, sëñ Séti Merci frérot, merci. C'est un frère, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Djeva. Merci, c'est gentil. Merci.